maa ngi leen di nuyu bu baax di leen fay di wax ne man maay alxasani nurullah euh, di sama surnom nag ci wàllu li nga xam ne moom lay yëngu muy lasraar euh, te defe naa ni yaakaar naa ne nag ñi may bëgg gën a ràññee bu baax a baax ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp incha allah. Uh-huh. comme ni nga ko waxee rek yëngu ci wàllu lasraar di wàllum faj yu mel noonu. Euh, yow ci lasraar boobu ndax da nga ci am ay da ci am particularité mooy dafa am xëy na yow loo loo mënete gaa ñu mënewuñ ko waaw loolu de moom duma koy wax ndax dafay mel na que kuy ndamu waaye dinaa wax nag xam naa lu sori loo xam ne fa ma ko xamee moom sori na ah euh, su ko defee ku fa mën a yegg it nga yegg fa waaye xam nañ loo xam ne daal euh, yëfi mag la xam-xamu mag euh, muy lu wér te du doñ muy loo xam ne lu luñ ci defit ci kàttanu yàlla du esek incha allah waaw kay léegi euh, balaa ñuy dugg peut-être ci biir waxtaan bi dëgg ndax yow xam-xam boobu da ko jàng wala loo xam ni loo donn la wala lan la. waaw tabaarkalla euh, loolu nag moom damay faral di wax lu bëri sax ndax ñu bari dañ ma koy laaj damay wax ne xam-xam moom euh, du lu ñuy donn lu ñuy jàng te looloo wér xam moom da dem jàngi ko wër ba xam ko waaye tëdd gént xam-xam moom am ko amul lenn nag mën naa am comme li ma dal. ci ndey ak ci baay ma juddu ñëpp day sëriñ mën naa nekk mën naa ci am don ndax ci sama sang euh, dama judd ci askanu sëriñ ba nga xam ne tey man su ma defoon benn faatiha rek euh, euh, yàlla mën na ko barkeel du bokk keneen ki nga xam ne nag moom loolu dalu ko loolu moom day am su ko defee am na ci mbër yi am na ci tailleur yi muy don waaye nag xam-xam moom nekkul lu ñuy doon da ngay dem jàngi ko ba xam ko su ko defee su ko mën a jariñe man su ko defee juddu naa ci askanu sëriñ waaye terewul damaa dem jàngi xam-xam nag ba xam ko dem naa ci nag fu sori dem naa ci ba Inde dem naa ci ba Chine dem ci réew yu bëri jàng fa xam-xam loolu moom am na nga xam ne yoruma xam-xamu réew mi kese waa kay. kon ni niñ ko déggee nga ne dem nga ba Inde dem nga ba Chine kon loolu di firndeel ni yow yaa ngi ay bagages yoo xam ni tey war nga ko mën a baaxee sénégalais yi. waaw su fekkee ne mun noonu lañ ko mën a déggee dañuy wax ne kon ñoo ngi ay bagages. waaye ñun dañuy wax ne baatin la euh, ñoo ngeeg baatin bu wér boo xam ne ci lépp alxuraan la lépp génnul sunna si euh, buur bi subhaanahu wa taala ak li nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ndax ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne yéen jullit yi euh, ñaan mooy seen gànnaay waaw loolu itam muy lu wér loo xam ne dara du ko weddi kon su ko defee dañuy wax ne yor nañ loolu ba tax na dañ ciy taxaw taxawaayu jàpp bokk ko jullit yépp ak képp ku dul jullit sax te am am te am ndax ndax lislaam ñëpp la fi nekkal xam-xam it ba ko suñu borom di wàcc ñëpp la ko ñëpp la ko wàcceel ba tax na euh, dañ ci taxaw taxawaayu xeet li mboolem jullit waaw loolu nga mën a jàppale mboolem jullit yi yow tey comme maa ngi wax sànq wàllum particularité moo loo xam ne yow rek yaa ko yow rek la ko suñu borom dénk tey booñ ci doon wax ci ci lan nga nga mën a euh, wax ni tey loolu yow rek yaa ko yow la ko suñu borom dénk nga mën ko baaxee jaam ñi ci lan ok waaw loolu moom dañuy wax ne euh, mooy ci wàllu xam-xamu plante ak ci xam-xamu lasaraatu mbind ak ci xam-xam bi nga xam ne zikkar la ñaan naafile ñaan yàlla beneen bi si des mooy ak yi mu àndal comme li li demee na nag jamono yi moom nga xam ne moom laay yëngu di ko di ko génn ci àdduna bi commencé di ko feeñal ñëpp tàmbali ma cee xàmmee muy lu mel ne jaaro jaaro xam nga bëri na waaye nag sama bos nag mooy dëgg-dëgg jaaro waxuma waxu publicité de damay wax lu wér te ñi xam jaaro bi bu ñu ma déggee duñ weddi li may wax te ñi ko doon dégg dañ wax leen jaaro bi carrément euh, ñoom euh, te nuñ ko woon am dana daw ñëw si ci man. léegi bi dañ ñuy may tuuti ñu taxaw ci jaaro boobu ndax yaa ngi ci insister euh, donc il faut nga wax ñu jaaro boobu lan la làmbool lan mooy jaaro bi ngay wax nii. waaw jaaro bi moom génnul li ñuy wax mulku Souleymane waaye nag mulku Souleymane mu ngi mel na nga gis garab rek na garab nangam waaye garab gi dafa am ay léegi ci biir Mulku Suleymaan dama ci bëgg indi tuuti ay détails ngir xam le ne rek jaaro bi lu wér la euh, yonent yàlla Suleymaan moom la yàlla mayoon pouvoir boo xam ne jinne yi ak mala yi yépp a ko toppoon te ba ko boole jinne yi ba noppi ñu topp ko jinne yi dañu wëlbatiku jox ko ab jaaro ne ko lii dañu la ci defal pouvoir yonent yàlla Suleymaan bokkoon ci yonent yi ëppoon alal Euh, bu bu xamee histoire am sax dégg nga ñuy wax naan jinnee ko tabaxaloon satom euh, sat euh, ba léegi ma nga fa pale boobu nga xam ne muy pale bu rafet daan wax ak mala yi tamit dégg nga picc moom ñu daan wax balxiis su ko defee pouvoir boobu nag dafa nekkoon ci jaaro bi moom nag mooy mulku Suleymaan waaye nag loolu mulku Suleymaan benn xeer la jaaro bi benn xeer la du téere du dara xeer la boo xam ne per la day dund comme per lay mel xeer bi day dund su ko defee boobu nag am na ay façon am na lu ñuy wax fayruus mooy comme bi ma takk nii am bu ñuy wax rubi fayruus moom li ko tax a jóg mooy soo bëggee am alal maanaam ndax jaar bi mooy jaaro 4 milliards bii nii mooy 4 milliards soo bëggee dugg tey ci niveau am bokk ci milliardaires yi jaaro bi am nga ko mooy bokk nga ci ci catégorie milliardaires yi ndax di nga am 4 milliards. moom mooy fay Fayrouz moom mooy jaaro milliardaire. mooy jaaro milliardaire bi jaaro 4 milliards laa ko tuddee man bi ma ci gësoo ba pare ba xam xam li muy jariñ. Mhm. ndeke mooy jaaro 4 milliards. Mhm. su ko defee. ma beneen bi ci des mooy rubi. gis nga kii mboolem xeeti feebar yi ñu ragal. Mhm. maanaam te muy dal doomu aadama yi lu mel ne sidaa lu mel ne cancer lu mel ne ay jabet feebar yooyu nga xam ne day dal nit te mënee su koo faj te ya nit ki bëgg ci mucc ci kàttanu yàlla jaaro bi nga am moom moo tudd rubi. per bii lay doon su ko defee day ànd ak ay turu yàlla yàlla nag daa def man ma xam tur ya xamit nag per yi fan laa ko mën a jëlee ma am ci ay partenaires yu ma ci liggéeyal su ko defee foofu lay jugee ñu am lu luñ ci def di ko joxe mu doon loo xam ne nag bëri na ay kilifa yooyu seen ci réew mi tey am nañ ko waaw am tamit ci àdduna bi ndax fu ne la nit di jugee di ko wut si ci man waaw muy loo xam ne euh, tey nit ku ñuul laa di sénégalais waaye yàlla def na tey yeneen xeet yi sax ñi ngi ñëw di ko wut si ci ñun. waaye xam nga sëriñ bi boo ne jaaro 4 milliards euh, est-ce que loolu du nekk tamit loo xam ni peut-être ñu mel ni man sama euh, genre yi dina jafe pour ñu am ko loolu ndax accès bi yomb na ci ci nit ñi. waaw comme ni ko suñu borom sa subhaanahu wa taala digle rek ndax gis nga du ñëpp ñëw mën a am. Mm-hmm. waa jaaro bi dëgg la jaaro la nag waaye du ñëpp ko mën a am ku a am njëg gi. Euh, say at mate ko tamit da nga ko mën a am ndax du il faut il faut say at mate ko waaye nag duñ ko wax ci tele bi ku ko ay atam mate da nga war koo mën a am boo ñëwee ba toog ñu consulter la xam say at xam sa sa sa valeur xam ni nga toll parce que doomu aadama bu ne am na biddéewam te biddéewam am na valeur bu mu su ko defee dana xam ndax mën nga am jaara bi su boobaa dañu la koy jox boo ko mënta am it ñu ko am su ko defee noonu la demee. mais sëriñ bi est-ce que yow ci jaaro rek est-ce que am am nga xam ne mën ko baax ni ñu lu dul jaaro bi. na xam nga da na ma jan lañ la gën a ràññee. Mhm. ak ci lan ngay yëngu damaa tàmbalee jaaro bi rek. Mhm. waaye dara baa ngi fi darab boobu wax naa ko àdduna bi yëpp di ko laaj muy darab bi nga xam ne da koy lal eh, bu dee ki nga xam ne am doom daf koo jafe boo ko lalee ci kàttanu yàlla subhaanahu wa maanaam boo tëwoon am doom am doom dalay lay daal di yomb ci kàttanu yàlla ndax nag euh, bu ñu wax ne lii mënta am ñaan yàlla laa wax man néew ma foqarti yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen te li ñuy wax ci alxuraan lañ ko jëlee dañ koy jàng tëfli ko ci darab bi am yuñ ko booleel jox la nga di ko booleel darab bi soo soo ci tëddee ci kàttanu yàlla yow ko jigéen ki nga xam ne da nga jafe woon am doom te nga dem fu nekk. soo ci tëddee di nga am doom ci nu mu gën a gaawee yamul foofu rek kese soo ñu waxee sax doom bi nga bëgg bu dee góor kese nga bëgg ñu fasal la ko ci te dañ ciy am résultat bu dee góor jigéen nga bëgg ñu fasal la ko ci muy ay seex te da koy am incha allah bu dee jigéen ak jigéen nga bëgg ñu fasal la ko ci te da koy am incha allah yàllaa koy maye nag du man maa koy maye waaye nag li ñuy wax nag ay tur yàlla la ak alquraanu karimu suñu borom bi waaw kooku moom bàyyi kenn moomu ko ku xamul nag. neel xamuma ku gëmunut neel gëwuma waaye ñun li ñu yëg ak li ñu ci xam ba di ko def ñun xam nañ ko ñin ko joxet lañ ci gis ñoom it xam nañ ko te duñ ko weddi su ko defee dara bi loolu lay jariñ yemul foofu kese day boole sax diggante góor ak jigéen moom ñoom ñaar ñiy sëy le fait que ñi ngi ciy tëdd di yeewu saa bu ñu xëyee dañuy gën a bëggante te fidélité day am ci seen diggante ba du soxlaa moom ku góor gi du soxlaa amaat sax beneen soxna waaw bu doon ñaar la du soxlaa amaat ñett su ko defee muy lu am solo loo xamante ñu ñu ngi koy defar waaw incha allah sëriñ bi xam naa loolu am na solo euh, waaye bu weesoo drap boobu nga xam ni xëy na dina euh, précision bu am solo ne parce que aussi xam na ni jamono doy na waar ba nga xam ni xëy na ku dégg loolu daw si ku bëgganteeku suwaayam rek ñëw est-ce que dafa am yow condition yooyu joxe drap boobu wala ku ñëw rek mën nga ko jox. waaw condition yi moom dañ ko ciy teg sax bu wér moo tax ñu bëri ndeysaan léeg-léeg dañuy ñëw jug demaat ak seen ak seen sax lañ yor muy xéewal ndax ñun nag ay jullit lañ di ay jaamu yàlla di ay doomi soxna doomi soxna mooy ku bokk fi askan wu baax euh, yamul foofu ñuy ay jullit te ragal yàlla nag ba tax na du ku ñëw rek wax ñu ndax euh, dañ koy ak dañ koy def ci sa tur te dañ dana laaj ndax am nga borom kër su boobaa itam sa borom kër euh, day ñëw ñu xam yan condition lañ la ko war a defaree ba mu leer nañu ñii kat dañuy sëy ñu defar leen ko kuy mooy ñun duñ ko jege duñ wax ak moom duñ ko lijjanti waaw su ko defee daal bu dee loolu la euh, moom danañ ko defee noonu te loolu mooy condition yi. waaw loolu am na solo euh, waaye ndax bu rombee dara bi ak jaaro boobu nga xam ni moom xam naa ni gars yi buñ ko déggee danañ daw si ndax xam naa ni réew mi fi mu ne nii ñuy bëgg euh, gis seen bopp ci réew mi bëri nañu da nga am leneen loo xam ni war nga ko mën a proposer nit ñi. waaw bëri na waaye xanaa ñu tàmbalewaat ci biir rek lu mel na mbaxane mi ak kaan bi ndax mbaxane ak kaan euh, bu ci ne dañ koo defar gëstu ko ba xam ci loo xam ne ki nga xam ne danga bëgg doon njiitum réew mm-hmm. wala nga bëgg doon premier ministre mm-hmm. wala nga bëgg doon ab ministre mbaa député mm-hmm. mbaa nga bëgg a doon sax maanaam yow ëllëg si bëgg nga maanaam di di jabaru leader da nga waaw bëgg koo jàppale yow ci si bopp bu dul moom moo ñëw yow nga ñëw bëgg bëgg doon grande dame waaw wala nga doonoon ko bëgg koo continuer loolu lépp a ngi ci biir maanaam bëgg nekk ci nguur gi continuer ko ba ba suñu borom dogal euh, nga war a faa jeexal nga soog faa jógee su ko defee dara euh, mbaxane moom ak kaan bi da koy def gis nga te yamul foofu bu dee kaan bi moom la fet que yaa ngi ko yor yow surtout musiciens yi wala mbër yi wala xeet yooyu le fet que yaa ngi ko yor téyeku nii di ko yëngal nit ñi duñ la gis dañuy gën a xër ci yow dañuy yooxu dañuy jooy ngir yow dañ lay bëgg dañuy am cofeel ci yow te loo leen jaay ñu ñu jënd ko te loo leen wax mu saf leen waaw bu dee ki nga xam ne day def élection yi noonu lay mel nit ñee lay jublu muy lu am doole nag muy lu doy waar mbaxane met noonu la demee waaye mbaxane moom du bëri fi nit ñi daanaka liñ ci defar sax bëriwut ndax ngu gu jiitam réew nag moom du ku nekk koy def wala bi général waaw loolu itam dañuy xam sa at xool la waaye bu ñu xoolee ne war nga koo doon rek danañ la ko jox fi na mbaxane mi maa ngi ci defar trois rek laa ci defar trois kese laa ci defar fi mu nekk nii nag ku yàlla dogal muy sa sens rek danga war a doon njiitum réew wala nga war a doon euh, ministre wala yooyu da nga ci am kaan beet weesuwul ñett yooyu ndax euh, loolu suñu borom dafa sàkk ñu ko war a doon waaye nag ku ko war a doon bu ñu jàkkaarloo yow danañ ko xam incha allah dañ ko sañ wax nii rek waa kay incha allah beneen bi aussi ñu seetlu ni jamono ji xaw na doy waar trop ci surtout côté góor ñi nga xam ni góor ñi mën seen bopp fi mu ne nii xaw na raar trop ndax yow da ngay liggéey ci loolu. waa kay looloo tax sax loolu dañ ciy liggéey moo tax ñu indil leen gëstu xam-xam ba boo xam ne ci Faatiha lañ ko jàngee su ko defee xam boobu ñu ngi ko tuddee moom lan mooy moom euh, dañoo gis ne euh, dafa am baatu arab bu ñu wax xuwa xuwa mooy tekki moom ñu xool lan moo tax ñu tudd ko moom Euh, tudd ko huwa tamit mooy boo jëlee xam nga lettre arabe bu nekk am na lu mu doon ci chiffre comme ha six la ha euh, cinq la waaw six la muy huwa boo leen boole muy onze léegi ñu gis ne kon euh, garab gi ñu defaree loolu néew kàttan bi onze fatiha la doon onze plant yu bokkul doon ay onze ay onze ba muy onze encore ñu xool gis na huwa boo ko calculer onze la lay jox ma ne kon xaaral ma tudd ko huwa huwa mooy moom su ko defee muy lu am solo moom moomu nag ah ku ko essayé da nga xam kan mooy moom waaye doon na lu efficace loo xam ne moom bu fekkee ne judduwaale woo tële néew kàttan rek yàlla xam ne boo ko jëlee euh, ci si fi nga toog ngay commencé yëg sa bopp tey li ci gën a garaaw mooy boo daawul yàgg ci jotaayu say da nga ciy yàgg yàggaay bu yéeme tey itam maanaam boole ci day force sa ndoxum góor ndax am na ñuy tëw am doom euh, maanaam seen ndoxum man yu moo woyof li mu war a am ci ay wallax ñaan su ko defee boobu loolu lépp da koy defaale te day faj hémorroïde day faj ndoxum siti ndax ndoxum siti mooy indi yooyu yëpp su ko defee day faj rhumatisme ak diabète ñi am sucre day régler seen sucre ba mu ba mu normal ak tamit li nga xamante ni moom mooy euh, tension yooyu yëpp da koy kii te dama ko defar defar bu sell ba nopp kaste ko nga xam ne yaa koy dajil sa bopp muy defar bu sell ku ne mën na koo jël nag waaw mu ngoog macha allah. olof yi naan balaa nga naan naam ne fa Euh, góor balaa muy mën boppam xëy na day fekk dafay fekk su ndaw dafay fekk jigéen te jigéen ñi léegi xëy na am jëkkër xëy na dafa jafe trop ci ñoom ba léegi dañuy wax parce que dañuy wax léegi gars yi takkatuñ léegi jigéen goo xam ne aussi dafa wut jëkkër ba sonn ndax bu ñëwee ci mën na ci gis boppam. waaw mën naa nekk xam nga ba may jàng xam-xam dafa am kenn ci borom euh, xam-xam yi ku ma wax ne ma na nga gën a gëstu bu baax moo tax ma dem ci fii ba Inde nag mm. mu ne ma xam xaw ma bokk ci. comme xaw ma bokk ci nag da nga war a gëstu xam-xam ba xam lu bëri looloo tax li ngay wax boobu ba léegi loo ci wax ma ne la am naa ko. néew ma nag am naa lépp lépp moom yàlla rek ko mën a am waaye nag am naa lu bëri nag macha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam su ko defee am naa loolu ngay wax noonu te loolu maa ngi koy defar ci crayon bi mun naa ko defar nag ci yeneen anam. waaye waaw crayon mooy comme yi ñuy pastel moom naa ko ba tàyyi sax waaye ma wanaat la ko nii rek ndax yi ma la fi wax yëpp bu ci ne ko wan su ko defee lii crayon la maanaam pastel la yu jigéen ñi def ci seen bët yi su ko defee moom dañ ko defar moccat ko te ay aaya alxuraan rek lañ ko defee de moo ne su ko defee euh, boo koy passaloo ci sa kanam yow ku jigéen ki góor ñi buñ la daan romb te duñ la xool te duñ la am ci yow léegi loolu da koy daal di am li ci gën a garaaw mooy jigéen bu am am góor bu am njariñ ngay am ndax góor tamit ba ca gën mooy ki la amal njariñ bu ñëwee mën laa yor jullite xam nga am yërmande ci yow du la dóor du la saaga dégg nga doo nit ku jub nag waaw su ko defee moom la la yàlla di dénk. su ko defee nga xam ne loolu itam dañuy wax ne kon am nañ ko. Mm-hmm. waaw beneen bi euh, boobu xam naa am na solo waaye beneen bi tamit euh, bari na tey koo xam ne mu ngi jaayle mu ngi joxe marchandise am euh, ñii dañuy leble duñ jot seen xaalis ñii ñoom loolu sax da amu ko amuñu ko ca mooy mënunoo jarle yow muy affaire u bayre ndax da nga ci am loo leen mën a jox mm-hmm. waaw kooku am naa ci yu bëri moom itam waaye bi ci gën a fes te gën cee gaaw gën cee wér mooy bi ñuy defaree vingt huit suuf robinet mbedd yu bokkul robinet mbedd mooy robinet yi ñuy rootee ci mbedd nga xam ne mbooloo dafay daje léegi yooyu lañ am suufam suuf si des ci suuf robinet bi am nañ ci vingt huit suuf robinet yu bokkul yu différent denc ko ba noppi soo ñëwee wax ñu ko moom lañ lay jox waaye loolu su fekkee yor nga ko nga def ko sa barab bi ngay jaay wala nga wis ko fa soo doon jaay ay xeer sax ci kàttanu yàlla dañ nit ñi dañ koy jënd te nit ñi tamit dañ lay ñëwal waaw mooy nga xam ne mooy bi gën a mag ci baare yi ma yor euh, boole kook am na cuuraayam tamit ndax am na cuuraay yu may defar yoo xam ne moom euh, boo koy taal yow mi nga xamante ni da ngay jaay te bëgg mu jar barab ba nga ko taal la nga fay jaay day jar jëreen bu gaaw boole ji itam day dindi umute hmm. waaw day dindi kumute ci ci ci yaramu nit waaw kay di xëcc wërsëg tamit boole ci bokkul ak cat ba tey waaye nag waaw. waaw moom cat ci boppam loolu lan waaw cat ci tam yor nañ ci yu bëri. waaye biñ ci indi bees nga xam ne gars yi dégguñ ko mooy sett nàkk yi juróom-ñaari nàkk yi xam nga juróom-ñaar dafa bëri lu muy jàpp ci baatin. Mhm. su ko defee juróom-ñaar yooyu nag dafa am fu mu bàyyi ko euh, tax ñu liggéey ko juróom-ñaari nàkk yi ba nga xam ne nit ki bu fekkoon na cat dafa bëri ci moom ndax cat nag muy lu garaaw nag. Mhm. muy loo xamante ni mi ngi toj àdduna bi. Mhm. mi ngi bëri ñu muy yàqal. sëriñ si sax di ci esek ndax cat dana jàpp nit ba muy crise di daanu ñu yóbbu ko ci sëriñ cat wëlbati xel ma euh, sëriñ ba di gis ne raba ko jàpp te fekk cata ko jàpp mu kon mi ngi lëmbe àdduna bi mm-hmm. bu ma la cat mën na lu raw loolu sax nga war koo gëm ndax xoolal euh, nit dana faatu ñu naan yàlla bu ko ci cat ci bàmmeelam yamul foofu de mu faatuwaat ñu naan yàlla bu ko cat fekk ci bàmmeelam loolu lépp dafay wane ne kon cat am na doole ndax dañoo jàppoon ne jëf rek mooy fekk nit ci ci bàmmeeloo waaw kon nga xam ne kon cat am na doole su ko defee euh, sëriñ Sohaybu bu Mbàkke Euh, radiallahu anhu moom Sëriñ Tuubaa doon na wax ne moytu leen cat ndax euh, cat ni muy def doomu aadama mi ngi mel ne mala bi dem ci ci ci àll bi jub dem ci àll bi di rëbb mala euh, rëbbkat bu dem ci àll di wut mala ngir jàpp ko nee na bu koy bu koy wër da koy wër ba gis ko bu ko gisee diir ko ba jam ko su ko jamee indi ko ci biir kër gi fees ko def ko ci cin li nee na cat nun raw noonu lay def nit ba indi ko def ko ci biir bàmmeel mhm. kon muy lu garaaw su ko defee moo tax ñu indi ci ay yëf ngir Euh, baaxee ko doomu aadama yi euh, muy juróom-ñaari nàkk yi juróom-ñaari nàkk yi ni nga koy jëlee mooy mm. da ngay tëdd benn bi lekk ko mm. benn bi nga taxaw lekk ko benn bi nga wetu ba ci des nga wetuwaat wetu ndeyjoor bu ci des nga këpp mm. noonu nga koy def ba mu mat juróom-ñaar bi waaye soo ko lekkee ci kàttanu yàlla euh, taqalikoo nga ak cat te nag muy lu garaaw encore cat dootul ñëw ci yow ci kàttanu yàlla. waaw beneen bi cat yaa ngi wax cat mu nekk man daf ma xaw a intéressé ndax am na cat dafa am na ay différence ndax nit mën na catu boppam ak aussi est-ce que euh, cat bi nga xam ni nit moo la koy cat ak yow bi nga catu sa bopp ndax am na différence. <laughs> am na différence kay ñaari cat yi xanaa xamoon moo gën a garaaw ci cat yi. muy cat bi nit catu boppam ak cat bi ñuy ñëw naan nit ki dafa baax xanaa xamoon diw dafa baax diw dafa baax moo gën a bon catu bi ñu naan diw dafa bon dafa bon xamoo ci loolu. bëri na ñu fi jógee tey looloo leen fi jëlee. seetlu ñu baax ñu fi jógee ni ñu bëree cat looloo leen fi jële gannaaw yàlla du ma ne nag ñëpp la euh, waaye catu nit ki ci catu boppam tamit boobu moo gën a garaawati ndax boobu fa fos day dal te su dalee du du du du gaaw a doñ wala boobu mbër dëgg ko mën a dindi mu desaat beneen catit bu gën a garaaw mooy borom làmmi ñu am tupp tupp yu ñuul yi gis nga ñooñu moom kuñ catu soixante-dix ans dana ko am soo gisul borom baatin dëgg te nag ñu ko fi mën a faj Sénégal dañ leen di wàññi de waaw damay bañ a wax man kese la waaye dama ni la euh, ku mënta faram-fàccee nii cat mënoo faj cat li ma la wax ndax cat day bàyyi ñaar ci doomu aadama day bàyyi tooke ci biir nekkaat ci kaw te ñu bëri dañ lay sang cat fekk ci kaw rek lañ leen tooke jam bàyyi ci biir moo gën a garaaw. xam yi juróom-ñaari naq da koy dindi yoraat naa ci yeneen yu gën a garaaw man damay taxaw di mocc cat di mocc moo pare paree ne la sawal nga saw nga gis muy génn su ma neexee xëpp la ndox nga sotti ko cat li di wàcc Euh, li ma ci yor mënuma la ko wax waaw te bu ma ci paree mën naa la defal loo xam boo summikoon ci àdduna bi toll nu la neex ku la catu ci kawam lay dellu bari na ci mbër yi ñoo xam man mii maa leen ko defal xoolal mbër yi ah, da gis ponkal mu day nu ko neex summeeku àdduna bépp di ko xool ah bët ñaari bët yu ne ba muy mille fois ñaata bët la ah làmmiñ bu ne ba muy mille fois ñaata làmmiñ la te ci biir làmmiñ yu différent làmmiñ yu garaaw a ngi ci te gis nga leen da ngay gis ñoo xam cocc la ñuy def ñoo lay gën a ah nga gis koo xam ne yow mi kat boo génnoon fi juróom-ñaari làmmiñ tudd la rek wala juróomi làmmiñ nga feebar cat kon am na lu koy défendre te li ma la wax da bokk te it ku ko xamul ni ma ko xamee gëm naa ni waroo ko mën a faj waaw ndax nag cat dafa sew te dafa gaaw waaw. xam naa sëriñ bi waxtaan bi neex na waaye euh, li nekk ci kanam moo gën a kii euh, ñu gis ni am na góor ñu nga xam ni euh, am na ñoo xam ni seen choix la bëgg nañu bu ñu yeggee fenn fi arrêté mais aussi am ñoo xam ni dañu bu ñu eggee ci benn âge bi dañuy gën dañuy bëgg toujours di mën seen bopp loolu ndax yow mën nga ci dara ci côté boobu noonu. waaw xanaa liñ ci mën daal mooy nga gaaw ñëw ci bi nga nekkee gone fekk dara jotu la am na lu ñu ciy defar lu ñu tudde laax bi laax bi moom bu ñu la ko joxee ndem soom na suñu borom incha allah rabbal alamin tële moom da nga ciy daal di mucc ba ba ngay am 92 ans. maanaam boo doon tëdd ñu lay yëkkati wala ngay yor yat ñu lay ñu lay téye xale bu ndaw boo téyee di nga ko gaañ laax boobu bu ñu la ko defaree la ba jox la ko muy loo xam ne mu ko bëgg mucc ci cat rek moom ngay ñëw ñu defaral la ko incha allah. ndax am na beneen aussi bu nga xam ni euh, sànq bi ñuy waxtaan yaa ngi koy wax muy nopp bi loolu ndax mën nga ñu si gindi tuuti. waaw nopp bi moom euh, ak sax savon bi maa ngi ci fàtte wax sànq dinaa ci ñëw waaye nopp bi moom euh, li ko tax a jug mooy boole góor ak jigéen maanaam ñaar ñi nga xam ne du ñu bëggante. bëgg a sëy te yàlla tax ñooñu laa koy defaral nag kuy moy du tax mu defaral la ko euh, te kuy moy boo ñëwee ba wax ñu ko nax ñu ba defarloo ñu ko yàlla xam na ni euh, au contraire maanaam euh, kii lay doon ci yow maanaam dëddale lay doon ci yow waaw ndax nag lépp loo jàng da nga war a xam lu koy dindi loolu baax na ci pour sécuriser ko ba xam ne kon kuy moy jaral nga ñëw ci ñun mm-hmm. waaye daal ñaar ñu bëgg a sëy te yàlla tax mm-hmm. ñu daj ci lu ne mm-hmm. te mënta nekk mbaa ñaar ñi nga xam ñi ngi sëy sax dem ba yàgg seenu sëy naqari suñ la defaral nopp boobu ci faatiha lañ ko def xam ngeen na faatiha moo mën ci nopp faatiha ni ñu ko gisee saar bu gàtt la waaye saar bu yéeme la xam naa beneen yoon mhm. bu yàlla defee ñu toog dinaa ci indi ay détails waaw def nañ ko loolu kañ am nañu occasion bi waxal ñu ci faatiha rek loo xam ni mën nañ ko jëriñoo jërëjëf kon ma ñëw ci tuuti ndax faatiha dinaa ci boole góor a jigéen mhm. ci nu gaaw noo xam ne ñàppentaan laa koy boole xaa xam bu tudd ñàppentaan euh, boole kook lem ak meewum bëy jël seen ñaari tur yi def ko ci biteel su ma ko ci defee ñetti fan laa la may nopp boobu day jàpp ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla su ko defee loolu dama ko ciy def mm-hmm. wëlbati ko tamit di ci taal nit maanaam ku amul woon tur maanaam yaa ngi doon waykat wala nga doon mbër mm-hmm. wala nga doon musicien mm-hmm. mbaa nga doon sax koo xam ne nii bëggoo doon yooyu yëpp waaye bëgg ngaa doon borom alal ci ni mu gën a gaawe nag moom gis nga suñu ñetti leket yooyu ngeen di gis noonu ci lañ koy defee te ci faati xala génn ko benn garab goo xam ne saa bu xëyee faati xala yi jàng ba ngoon moom lañ boole garab googu xas ko def ko sunguf bindaat fa faatiha def ko ndox siimee ko ko weer ko ba mu jëlaat faatiha sikkar ko ci kawam weer ko ba mu wow naafilewaat ay faatiha euh, ñaan ci yàlla tëfliwaat ko ci moom sunguf soosu ñetti leket yi leket xam nga ne lawtan la euh, garab la goo xam bu xasee ba sax day continuer di dem rek waaw su ko defee sunguf si moom ci leket lañ la koy defal jox la na la sangool soo bëggee tàkk dey ci nu mu gën a gaawee ñëpp di la dégg loolu lañ lay jox te ci faatiha la te faatiha noonu lañu ci mën a yàqe nit tamit duñ def nag lu bon mm-hmm. waaye te ji suñ bëggoon a fay nit rek maanaam faatiha dañ la ñuy wut rek jël juróom-ñaari ndax faatiha léppam juróom-ñaar la su ko defee juróom-ñaari sondeel la ñuy jël aaya faatiha buñ toll am luñ wax am luñ def mm-hmm. fekk taaloon nañ sondeel yi mm-hmm. damay fay rek bàyyi buñ la bëggee fay ci nu mu gën a gaaw dañ lay fay kenn dootu la dégg bu dee da ngaa yoroon dootu yor dara man nag du man xam ci suñ borom la jógee waaye damay xam ne mën nañ ci ñaar yëpp ndax day def dafon ak jalbu te loolu mooy dafon ak jalbu xëcc ak jañ waaw waaye su ko defee ñun duñu def lu bon ndax jullit lañ te duñ ko defal kenn itam waaw léegi su ko defee même faatiha boobu ci la ñuy defar li ñuy wax kànnaar bi waaye kànnaar bi itam du ku nekk da ñu koy wax rek ñu defal la ko ndax kànnaar bi li ko tax a jóg mooy yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci askan maa nga nekk ci bitim réew di liggéeyal tubaab mu bëri alal lool waroon laa mën a fay fukki junni euh, di la fay ñetti dërëm wala di la fay ñaar fukki dërëm ci misaal daal pour nit ñi dégg ko su ko defee nga bëgg ndax ñoom dañuy yor seen alal te gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi te bëgg ñoo jàpp ay su boobaa boo nu ko waxee euh, yàlla xam ne ni buñ la ci tëjalee buñ la ko joxee koo ci woo torum tudd ko boo ko tëjee li nga ko sant dana ko def moo tax bala ñu la ko jox moom it dañuy gëstu ko tax a jóg te it la ko joxee boo ci def lu neexu yàlla kànnaar bi day dellu siwaat fi mu fi mu fi mu fi mu jóge woon muy ci man waa ndax nag lépp luñ jàng ñun dañ ko topp ba mu sës xam li ciy defar xam li koy yàqaat ba tax na loolu lañ ci bëggoon waaw ah, ndax ñun toujours dañuy seet yàlla toujours tamit dañuy dawal yërmande doomu aadama yi ba tax na loolu daal moom it ci ngi koy defar waaw ba nga xam ne Fatiha kon mën na mën na lu yéeme mën na lu bëree bëri tamit euh, surtout li ñuy wax tasxeer maanaam maanaam tàggat doomu aadama yi ba muy wéy ci say waaw moo xam góor la moo xam jigéen la Fatiha moo ci meilleur hmm. ok waaw euh, xam naa euh, sànq ba léegi yaa ngi wax ma lay déglu mais dafa am loo xam ne dama ko seetlu hmm. mooy yow ci li ngay liggéey lépp yàlla jagleel la ko ci wàllu lasaraar yaa ngi koy def bu dul ci mbaxane yaa ngi koy def ci jaaro yaa ngi koy def ci crayon mu nekk ay objet yu nga xam ni euh, du sonal nit xam nga tey nit góor mën na xëy sol yëre olofam teg ci mbaxane jigéen guy xëy tey te faaruwul deful crayon xaw na jafe jigéen buy xëy tey te jëlul jaaro wala góor buy xëy yorul jaaro kuy tëdd ci lal te laloo drap xëy na jafe na lan moo tax nga choisir objet yooyu noonu pour pour di si liggéey waaw loolu euh, euh, li liñ ci jublu mooy comme li nga wax bañ sonal nit ki ndax nag gis nga xam-xam dafa doon loo xam ni euh, saa su xëyee maanaam day gën di yokk day gën di évoluer maanaam comme ni tubaab bi di gëstu saa bu nekk ñu indi portable indiwaat xam-xam mën nañ ci loolu xëy na dafa fekk na xamoo ko rek waaye xaatim yi ngay gis ay nit a ko créé ndax xaatim bi muy xaatim bi njëkk a wàcc comme croix après lañ ci yokkaat mu amaat côté loolu lépp ay borom xam ko def dégg nga aay yi ngay gis bu ci nekk ay borom xam-xam ñoo ko créé def ko noonu tamit ñun gone yi noonu lañu war a dem jàng ba mën a créé lan yii maa ko créé maa ko jàng am ci ndigal war ko mën a def ndax nag euh, gis nga jëlale naa yi nga wax mais lépp loo gis ci àdduna rek war nga war nga ci mën a def luy luy jariñe dara du hasard lépp lu yàlla sàkk rek am na lu muy jariñ waaw muy lu mu mën a doon moo xam ndox la moo xam te lépp lu yàlla bind xanaa xamoon ne baate nañ ci fi na ngelaw képp man bu ma rombee mën naa xam ngelaw li banturu yàlla la wax nga dox nga def benn pas def crasse crasse boobu dinaa xam ban yàlla la wax nag yooxu dinaa xam ban turu yàlla la wax te loolu lépp pour wax la ne àdduna lépp loo fi gis muy dox wala lépp lu yàlla bind mi ngi jaamu yàlla kon nañ delloo xel yi ci yàlla nañ jaamu ji yàlla te xam ne yàlla rek moo fi nekk te yàlla rek mooy kenn waaw su ko defee xam-xam yaatu na looloo tax ñu tudd ko asraar asraar mooy géej su ko defee euh, kon asraar mën na lu nekk ba tax na yii ñu gëstu foofu rek lañ ko teg jàng ko ba xam ko di ci jëriñu te nag ñu ngi ciy jëriñu bu baax a baax a baax nag maa ngi ci am résultat bu wér. waaw xam naa euh, bu ñuy dégg sànq dafa booy wax wàllu jaaro bi yaa ngi fi wax jaaro milliard yaa ngi fi wax ay kii yu bayre ndax mën nañu wax ni tey sëriñ bi moom. li muy defe li muy defalaate ndax moom mu ngi ci gis boppam ndax moom nekk na millionnaire ba pare avant mu bëgg doon def nit ñi millionnaire. waaw yaakaar naa ne de man su ma nee millionnaire laa wala milliardaire laa doo ko wedde ndax nag bi nga fi ñëwee xam nga ne man duma ma sëriñ bu ndool mm-hmm. waaw te macha allah nag du ma bu ndóol mm-hmm. lu nit di am rek am naa ko mm-hmm. te incha allah sax dina am lu ko gën a raw ndax nag ñun yor nañ toog nañ sax lu ci lu gën a garaaw jaaro bi gën koo gaaw. waaw jaaro bi nag ndaxam gaaw na lool waaye loolu nag dafa lekk loo xam moom bagage sëriñ la ci ni ma ko mën a waxee ñu dégg ko pour wax la ne kon du jaaro bi kese waaw te nag tur yàlla mën naa may lu nekk waaw su ko defee daf cee bokk sax nag nit ki lay ñaanal nga yaakaar ci moom waaw war nañoo ñëw fekk nag doo doo doon ko lompoñ waaw waaw mu tam bañ doon looy incarné waaye mu nekk ci ñun bañ teddee yàgg na mm-hmm. xëy na dañuy soog a génn ci télé yi rek te dara may ñu ko lu dul tur su ma su may kii damay damay jàpp ni xëy na yow li yàlla daf la ko baaxee nga bëgg ko jox nit ñi bëggoo ko téye ak nekk nekk ko téye ko nii rek te du jëriñ nga neex naa ko génne jox ko nit ñi waaye seetoo ci dara. exactement sax noonu la demee ndax dafa fekk ne eh, yàlla li mu yor du jeex te pour ñun rek la alal jii ngay gis lu mu bëri bëri ku ko am yàlla la ko may ku ko ñàkkit yàlla la ko xañ te it yàlla mën naa ma ñëpp kenn lu ñàkk te noonu sax la ko yàlla programmé. xëy na sax ci suñu biir ñun ñooy soxarante rek mm-hmm. waaye bu buñ ko defee woon noonu kenn ku ne lam am buñ ko sëddoon ci suñu biir kenn du ñàkk kon su ko defee loolu xel mën na ko nangu te it loolu laa ci jublu ah xëy na waneen askan waaye suma ma sonoon sax ku fi yeewoo maanaam doo doon kuy ndool te jaara bii mën na loolu képp ku mën a am njëgam ah, te mën koo am bu soobee yàlla dana la ko am dana la ko jox te buñ la ko joxee doo bokk mukk ci ñi ñàkk incha allah waaw beneen bi sëriñ bi euh, ngay wàll ngay yëngut ci wàllum lastar ñu jëm nag ci ay élection élection présidentielle yoo xam ni déjà coow li bëri na euh, ku nekk naan man maa war a jël yëf yi yow lan nga ci gis loo xam ni war na cee am wala boo ci gisee lu nga xam ni ñaawteef la wala loo xam ni nit ñi war nañ ko def pour lépp lu nar a ñëw daal Sénégal mu bañ ñu dal. ok jërëjëf sëñ bi nga laaj loo xam ne saa bu ma ci excès bu ma koy wax sax sama fit day xaw a muy loo xamante ni euh, gis goog nga wax dama ciy gis ndax nag damay gis euh, damay gis léeg-léeg ma gis ba tiit ci sama bopp moo tax dama dëkkee sax di saraxe euh, te élection yooyu wax dëgg yàlla dana dana dana ñàng te maa ngi junj tuuti njiitu réew mi am na ay signes yu muy joxe yoo xam ne signes ku fi bëgg a jóge lay joxe. Mm. waaye am na nu ñu mën a ñaanee tamit mu toogaat fii te man dama am sax yërmande ci moom su ko defee ñoo ngi xamle ne daal élection yi dana tàng. te itam maa ngi junji euh, ñi nga xam ne ñooy sëriñ si ku amul bopp bul jéem a dugg ci yenn yi ndax dana tàng de ndax gis naa ci ay sëriñ yu jóge feneen yoo xam ne ay jinne la ñuy jéem a indi ñoo xam ne sax dañuy dem bay dooni ngelaw gis naa ci lu bari damay junj rek nag ndax lépp du lépp la ñuy wax waaye bu ñu ci yegsee man réew mi moom dinaa fexe ba ku fi yeewoo ñu wax leen sarax sarax bi nag sax dañuy tàmbali tey wax naa ko ci ay quelques télé waxoon naa ko tamit fii ci Dakar euh, Actu su ko boobu Euh, sëñ bi bu leen xool ne doomu aadama laa rek bu leen xool ne tamit sama ay at dafa néew mbaa mbasin bu rafet bi ma sol waaye li may yëg bay wax lii man maa ko xam élection yi dana tàng man gis naa ko te lu wér la te itam dana jaxaso lool sacrifice dana bëri lool euh, te atum ren mii itam dama cee gisaat sax maanaam deewu ndaw mu bëri ci lool muy 2018 bi ndax euh, xanaa xamoo ne ci atum wolof mu ne buy buy buy teru bis bu njëkk ba da ngay xam lan moo ci war a xew foofu laa ko teg mu bokk ci ilmu nujum xam-xamu astrologie mm-hmm. euh, ma jàng ko lool maîtriser ko lool mm-hmm. ci laa xamee ne deewu ndaw dana bëri ren. waaye sëriñ waaye foofu loxo mm-hmm. euh, da nga wax léegi lu am solo muy nga ne njiitum réew mi dafa am ay signes muy wane. yuy wane yuy firndeel ni bu moytuwul mbir mi dana xaw a doy waar ci moom ndax mën nga ñu may tuuti ci signes yooyu noonu. waaw loolu gis naa ko gis naa signes yooyu. ndax euh, loolu boo jàngee xam-xamu astrologie. da ngay dem ba da ngay xam chiffre bis bu nekk ni muy taxawee. ak heure bu nekk ak nit ki buy wax position bi muy taxawee dama gis ay position yu bëri yoo xam ne bi muy wax daf ko ni taxawee te loolu ba dama ko gis ba muy juróom-ñaari yoon ndax juróom-ñaari yoon nee naa dafa am lu muy jàpp ci bàttin te loolu baaxul ku fi waaju jóge la waaye nag moo ne mënees na ko ñaanal nag mu toogaat fii ndax nag ci baati nit xam nañ ne ku fi am njëriñ ci réew mi la waaye loolu nag buñ ci amul ndigal sañuñu ko def waaye daal li ñu ko mën a wax mooy euh, na na waaj boppam bu baax ndax si ñu koy jógee moom taxawe na ko waaye nag mën na fee toogaat loolu waxuñu ko ngir mu ñëw ci ñun wala la leen waaye dañu koy xamal na ko rek na gën a góorgóorlu bu baax beneen bi ci des li ci teg mooy na la rek su ko defee jéggale li xew ci réew mi ñu rafetal ko ndax Sénégal réewum jàmm la te itam ay ñu baax ñi ngi fi su ko defee te jullit lañ te suñu borom moo ñu dig la ñu rafetal ñun jullit ñi beneen bi ci des may wax nag ci mbirum euh, franc-maçon yu ñuy tudd di wax ne nag coow li moom yàgg na fi waaye dañuy wax ne feeñ gi moom ren lay tàmbali euh, ndax am na lu mat juróomi at maa ngi ñaan yàlla muy góor jigéen yi ak franc-maçon yi ak ñu xeetal ñooñu suñu borom jëlee leen fi feeñal leen ñu jëlee leen fi te man bokk naa ci ñi ci ñaan new ma nag man kese la beneen bi aussi li tax ma junjoon la la ci njiitu maanaam euh, euh, ñun xam nañ ko xam nañ xam nañ nam taxawee xam nam taxawee ci ay biddéew moo tax ñu waxoon loolu rek waxuñu ko ngir lenn ndax dañ koy ñaanal moom mu sax fi waaw ndax nag mi ngi liggéey ñun politique du suñu mbir waaye nag incha allah nag góor góorgóorlu te te ñaan la bu baax ci réew mi mu mën fee continuer mën fee sax incha allah rabbil alamin waaw nga wax léegi ci franc yi ñun loolu aussi xaw ñu intéressé ndax da gis da nga da nga gis ni ren muy 2018 bii. Euh, say seeni mbir dina dina xaw a doy waar. ñu bëri daañ feeñ. fii ci Sénégal parce que xam nga lu tax Sénégal du réewum naa feq ay kilifa ñoo fi nekk ñaan fi ñaan lu baax. Hmm. su ko defee kuy nuru nuru euh, euh, ab jullit. te doo ko ren moom ñu ci bëri daañ feeñ maa la ko wax. ku ci bañ a feeñ bay ba réew mi ba jamono waaye atum ren jii. Ah. ñu bëri daañ feeñ. Hmm. am na ñuy tàmbalee feeñ ñeneen daan feeñ. waaw su ko defee ndax lan la. xe soow mu weex lu ñuul bokk ca. foo ko ca toqalee mu feeñ te Sénégal gii noonu la ko suñu borom dogale te noonu la ko mag ñi ñaane itam waaw ba tax na kon nañ xam ne ku fi def def fi lu baax ku fi deful lu baax euh, maanaam ci sa kaw lay këpp te itam da nga feeñ fàng ba ñëpp di la gis incha allah rabbal alamin beneen bi euh, nga wax léegi ci élection yi am na loo xam ne mënuñ ci bañ a wax aussi muy coupe du monde bi nga xam ne ci la ñu jëm te Sénégal qualifié ci ndax gis nga ci ndam ci équipe Sénégal. waaw football sax moom dañuy faral di wax ne ñun duñ ciy wax ndax euh, dafa jëm tuuti ci wàllu caaxaan. waaye nag euh, lépp lu jëmee kanam sam réew ah war nga cee wax xanaa bu ñu demoon ba yegg ca jege ko amaana am na lu ñu lu leen mën a tegtal waaye lu doon lu ñuy wax ci tele su boobaa bu fekkee ñi ko ñi ci ñi ci nekk aajowoo nañ ah xëy na buñ ñu ma seetsee man dinaa leen ko wax moo ne mën nañoo am ndam de te bu fekkee ne mën nañoo bokk ci nit nit ku ñuul ki njëkk bokk euh, yor coupe coupe du monde euh, gone gu ndaw wax na leen tey ne mën nañoo jël coupe bi. waaw ndax nag mooy li ma waxoon sànq ci la la ci njiitu réew mi rek ñoom am nañ si ñuy wane na mën nañoo mën nañoo mën nañoo jël coupe du monde waaye nag taxawaay yaa desee dëgër maanaam ci li ma la wax nii ci am xam-xamu ilmu nujoom la taxawee waaw ndax damaa gis victoire yu bëri ci tàmbali ba mm-hmm. gisaat victoire yu bëri yu xajam waaye nag mënees na koo satal waaw maanaam victoire yu xajam maanaam maanaam victoire la yoo xam ne war naa mën a nekk waaye dafa taq suuf ci baatin su ko defee buñ ko saraloon ñoom mën nañoo mën a jàll foofu xam nga bu baax li ma bëgg a wax olof yooyu dégg nga ko maanaam ni ma bëgg a waxee gis naa leen mm-hmm. maanaam gagné nañ ba ba war a bokk ci ñi dem coupe du monde ma gisaat yeneen victoire yoo xam ne war nañ ci mën waaye yooyu dafa xajam waaw lu ñuy setal la xajam mooy lu taq maanaam setul daal ci ci baatin dafa leerut ndax dafa am position bu ñu taxawee rek moo waral loolu te loolu itam am na nu ñu fi taxawee rek yàlla mën naa def man nag aajowuma ci damay wax rek daal li nga xam ne comme yaa ma ci laaj ma wax ci waaye su ko defee ñun moom ci yeneen lañ gën a jublu sax incha allah rabbal alamin mais nga yaakaar ni yaa ngi wax nii xëy na bu ñu am na taxawaay bu ñuy taxaw dinañ ci dinañu gën a feeñ ba xëy na sax li loo xam ne mosta am mooy ngit ku ñuul indi coupe du monde mais ndax amul tey ñu nga xam ne ay sëriñ lañu euh, nekk ci suuf di yàq ba nga xam ni Sénégal tey lu mu lu mu ñor di du du ci jot. waaw loolu moo ci jiitu bari na ay sëriñ yu ci nekk di yàq am na ñoo xam ne sax ci li ma gis man am na ci ñoo xam ne sax dañuy yàq ngir bëgg ñu seet si leen waaye loolu jaru ko nit ki lu sa yoon nekk mandul boo ko mënee ñaanal yàlla nga ñaanal ko yàlla man day sama yoon newut ci loola waaye nag ah bu buñ ma ah xëy na buñ ma seet si woon de man dinaa leen jox ay tegtal waaw tegtal yoo xam ne mën nañ cee mën nañ cee am résultat de waaw noonu laa ko mën a wax ne aw ma nag ci ñoom soxla nee naa la man turu yàlla laay yëngu yàgg naa ci lii may def su ko defee man maa ngi tedd démb tey soog a ñëw te it wax dëgg yàlla visé wu ma leen sax waaye nag comme laaj nga ma ci ma tontu ci loolu te ci réew mi lañ bokk ndax suñu amoon victoire it wax dëgg yàlla loolu njëriñu Sénégal la dana am lu mu dugal ci réew mi am it euh, tur bu mu def ci réew mi su ko defee bu boobaa buñ ma ko sàkkoon ma defal leen ko. waaw xam naa waxtaan bi neex na sëriñ bi waaye dañuy bàyyi rek nga joxe kàddu yu mujj mm. euh, ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci Dakaractu. xanaa di gërëm yàlla bu baax rek tey ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi mm-hmm. di fàttaliwaat sarax boobu tamit nee naa leen li ma yëg ba gis ko wax ko maa ko xam ku nekk am na loo yëg mm-hmm. te yàlla xam na ni am na lu ma ci yëg mm-hmm. te am na lu ma ci gisit bu wér nag su ko defee ku ko mën. nga génn ñaar fukki dërëm nga saraxe ko wala juróomi dërëm te loolu yomb na lool am na ñoo xam it bu la neexee ñu génnal ko seen waa kër yi fu waaye mën a nekk ci àdduna bi te di ma dégg daal nañ xam ne atum 2018 mii deewu ndaw dana fi bëri li tàmbalee suuf vingt cinq ans dana bëri lool sax te lu ci ëpp dañ naan malaise ko jàpp rek wala siburu wala dara du doon accident sax muy lu yéeme muy balaa nag boo xam ne man wàccewu ma ko damaa gis rek kay dogal suñu borom la bu ko neexee xëy ko soppi waaye man li ma gis rek laa wax su ko defee ku ko ku ci bëgg a mucc nag na génn ñaar fukki dërëm saraxa ko ñaar fukk dafa am lu mu taxawee euh, juróomi dërëm it am lu mu taxawee ci baatin su ko defee ku ci bëgg mucc mën nga koo daal di def incha allah rabbil alamin tamay ñaan ñëpp mucc di wax ne nag euh, réew mi benn la di ñaanal njiitu réew mi ne ko na jéggale jéggale dafa am solo am réew soo bëggee mu jëm kanam bu ñu bu ñu bu ñu dencante dara ci xol yi su ko defee mel na ne moom ku baax la man xawuma ko tey it ko lijjante xam waaye daal li ko bëgg a soññ mooy na jéggale su ko defee nag euh, ñuy wax ne ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina yéen waa dakar Dakaractu waa kay di gërëm bu baax nag sama xarit bu baax bu fay liggéey ku ñuy wax euh, Sele euh, di leen gërëm yéen ñi itam ngeen ñu baax mm-hmm. di nuyu tamit sama benn xarit ku ñuy wax sekk Ndaanaan di ñëwkat bu mag ci Sénégal ndeysaan du mooy faral di def loolu sax waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla wéral loxo bi ndax tubaarkàlla mën na ñaw lool macha allah mm-hmm. ngeen seeti ko bu baax a baax jërë ngeen jëf waaw